kuréelu CNG di wut njiit bu bes ndax Bira Sène ndarkeb na mandaawam bésum fanweeri fan ci weeru septembre loolu moo tax Khady Diène Gaye ministre bu ñu dénk tàggat yaram wote ndaje ak kurel yi yëngu ci walum lamb ji gannaaw waxtaanu ñetti waxtu bi dox sen diggante ministère joxna ultimatum juróomi fan pour mu tan njiit bu bes lu tax ndaje bi ndax te CNG bi nga xamantene mom la état dënk pour mu def promotion ak développement de la lutte. sen mandat bi dafa jeex depuis fin septembre bi ñu génne ci 30 septembre bi ne seen mandat bi jeex may fàttali au mois de mars fin mars sen mandat CNG bi jeexoon na itamit mais kilifa bi nga xamantene mom lañu la fi ci kaw bop département des sports dafa décidé won prolongé ko ba ci mois de septembre bi légui nak jeex na fu mu nekk ni foog ñu dem nag ci renouvellement CNG bi instance bi ni te foog ñu tànn tànneef bi nag prérogative boobu noonu texte yi état du Sénégal la ko jox maanaam état du Sénégal mooy administration en charge du sport te man mi maa nekk ci gaw boppu administration du sport bi man maa am prérogative bi tànn ki nga xamante ne moom nar a diriger CNG de lutte bi ma ne nag xëy na gannaaw am naa prérogative mais man duma ko doxalee noonu man dama bëgg a demee ak une démarche inclusive

pour m'inscrire dans cette logique si association ñu ñetti candidat dina sukkandiku mu def bi war ngir doxal démarche inclusive dina ndol mu convention d'objectifs mu amal ligéyam ci anam yi war. vous len nak dig mardi di secrétaire général du département bi ande ci ak les différents euh, directeurs techniques ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy gérer euh, question yooyu noonu ñoom danañu fas yéene toog association yu fi teewoon tey ku ci nekk di nga yebal ku lay waxal sa porte parole fas ma jébbal ben liste liste trois personnes laa leen wax nga xamantene buñ ko fi indé ci liste bobu man ci lay sukkandiku. daal di tànn ki nga xamantene mom lañu la donc le CNC de lutte pour un mandat d'une durée d'un an.

pour def une évaluation. Gris Bordeaux di rafetlu jéego yi nga xamante ne Khady Diène Gaye baral na ko waaye di sàkku ñu yeesalaat chatu kuréelu CNG ndax làmb ji mu ngi jànkonteeg ak ay tolof tolof. suñu ministre tutelle woon ñu pour ñu waxtaan xool làmb ji déroulement yeeg di xew ci làmb parce que dama làmb nag quoi qu'on dise mooy yàgg na yàgg na lool mu am ay. mu am lu doxul lu bare bare bare bare ñu xamoon nañu moom

kon loolu bon day wane rek ah, ñoom seen intention ci li nga xamné mom la réew mi euh, jiital leen. parce que lamba ñi ko séq dafa bari ay conflit d'intérêt conflit d'intérêt yi moo ñuy moo ñuy moo ñuy sëngéem ah. parce que tey euh, tay mënoo làmb c'est toute une corporation. Burkhan Wad, président des managers de lutte Andou na ñu bàyyi Bira Sène wéyal bi si bopp CNG di sàkku si acteurs yi ñu lëkkaloo ngir ñu yeesal làmb ji mu delluwaat fa mu nekkoon. gestion bu baax bi nga xamante ni ñu ngi koy gérer seen xaalis di jox mbër kon bu ñu promoteur wax mbër mënuñoo mënuñoo wax le CNG bi nga xam ne gérer la lutte may wax ni rek tey ñun bu ñu laaj. une équipe qui gagne duñ ko changer su fekkee ni tey jii yow da nga toog lépp loo xam ne nekkoon na ay jafe-jafe bi promoteur yi ñëwee ànd ak mbëri ñu dem auprès du CNG mu gérer seeni yëpp la nga xam ne mooy contrat yi ñu respecté ko ba loolu yëpp ñu def ko man yaakaar naa ne kon équipe boobu dafa nekk équipe boo xam ni dañ leen a war a reconduiraat tey nag ñun duñu ñu tànn koo xam ni yow yaa ngi toppatoo say affaire bopp nekk ci leneen. ñun ñu nekk ci làmb di fi liggéey loo xam ne liggéey bu mucc mucc ayib la ba pare ñuy bàyyi équipe bu baax bi pour dem di seeti keneen ku ci bokkul. loolu moo tax ma man ak samay mbokk manager yëpp ñun suñu xalaat mooy reconduire reconduire équipe bu équipe bu Brassens pour la bonne marche de la lutte sénégalaise. Khalat bu le mel la Bécaye Mbaye ndax promoteur bi moom kott mooy financé Marie. yi sans jàppandalu autorité yi chroniqueur bi yëngu ci walum làmb ji di ñaan ñu professionnaliser lambudi ji bitim autorité yi du dugal Sen loxo ci gis-gisam fédération khalat ko tey xalaatu ko ëllëg. affaire bi du na fi diw non non affaire bi du affaire bi na baax parce que làmb mi ngi dox di am ay balaga yi ngi bëree Eumeu Sène ngi bëree modlo ngi bëree loolu boko day xol lamb doxna mais au fond doxul li sax doxul moy benn nit moy financer ñep lamb moy c'est le promoteur le promoteur ci limuy joxe ci lenay fay mbeur bi ci la menacer bi di am pourcentage am ci la entraîneur bi di fayeku ci la ci la ci la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

kaaf noon la mel dañuy gisee seen biir waxtaan seen waxtaan ah non bu ñu demee nag ah écoutez ah. loolu du affaire mafia loolu fi la mës a nekk léegi ménager yi waxtaan ci seen biir ah ñun bu ñu demee Bira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 ñu yor làmb mooy les promoteurs ñoo moom làmb ñooy fay ñëpp seen xaalis a ci ne hmm. ñooñu ñooñu rek waroon na nu ñoom rek ñu ne leen tànn leen kat ngeen bëgg waaw bu dee biraa la ñu validé ñu falaat biraa nag neexul ba neexul nag dëgg dëgg nag adduna amul solo ñu continuer la vie continue mbir bi bàyyi nañ ko si loxo acteurs yi ku nekk si ñoom war na jébbal ministre bu ñu dénk tàggat yaram listu ñetti candidat mu tànn ki war a wutu Bira Sène ci boppu CNG ñu ngi leen di dig daje talaata fukki fan ci weeru octobre ngir xam njiit bu bees commité national de gestion làmb ji